برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان pour ma waxal la xam nga Baye ak Senghor jotewuñ dara lu personnel ndax Baye nekkoon na fi ay commandant du cercle ay gouverneur du Sénégal te ñu ngi doon dox yi ñu doon dox yëpp saam yi ngay gis ab commandant moo ko ko rëddal may ko ko suuf si jëmbal ku garab yu ne ci àddina taal bi dafa xamul yooyu rek ne ko lu nekk fa nekkoon aljanna lay ndiru tey may sëñ Bassirou kon nag du jëmmi sengoor mais Baye dafa ñëw dañuy ñëw ci senegal Lamine géey am parti Senghor am parti Senghor tëbutoon am parti lamin Gueye ko indi ci réew mi fa mu doon jàngale grammaire ca France indi ko wër moom kër sëriñ si wane ne bu amoon nangam yu mel ni kii rek defar Sénégal kéemtaan soo am na si ndax balaaj moo seen bu daf koo fekkee xaw ma Baye Mbaye kenn si ñoom ba muy koy présenté Baye bañ génnee dafa Baye defe naa ma ne ah Lamine de moom a gën a dal xel foog na kii du ko uruj xam nga loolu du mbiram xel mbiram kër Euh, euh, yàggu dara ñu tàggoo biñ tàggoo nag Lamine avant Senghor dafa amoon ak bàyyi ay colère xam nga bàyyi du bàyyi colère yooyu ngir Senghor mi ñëw bees Lamine bi muy wote ak Ngalandou juuf am na bés maanaam yoon wi lamin am ndam benn yoon dafa ñëw di campagne ñëw nuy si bàyyi ci Medina. ba mu génnee bàyyi ne bi yoon day yaakaar naa incha allah la mi nay gañe ki ko laaj-laaj ko mën na ko jàngal dafa ñëw tombeek suma diwaan bi maa ngi toll ci jaal du ko yaa xeeral anaami safira wa kulla zamanin ma araka mujira ma xam ne mooy gañe booba député du lu may ku ñuy yónni France muy fekkee ci daje booba mu tombee mi ngi naan yonent bi def naa la yow ngay suma safiir bi may yebal fu ma bëgg a dem rek yaa ma fay teewal mu ne ma xam ne kii dana booba la gañe ñu nekk fa nag Lamine di jullit di doomu ndar jàng risaala xam ci alxuraan lu bari nag wax dëgg yàlla góor góor góorgóorluwul nag comme politicien ci côté Baye waaye nag Baye moom la àndaloon biñ demee nag ba nga xam ne ñi ànd ak Senghor ci kaw la am na ci ñoo xam ne dañuy xeex Baye lu bëri xew na fa mais comme dañuy enregistré ñu yem foofu rek ndax ñu bëri meroon nañ démb tey d'accord nañ moo tax wax ko bu yemale ko rek waaw léegi Baye yàgg naa wax ne dama sañut Muhammadu di xëccoo ak Léopold may ànd ak Léopold di bàyyi Muhammadu yàgg na ko wax diggante bi yu bëri xew na fa yu bëri xew na fa parce que biñ demee nag xista bi gudd na bi Cheikh Tidiane Sy créé parti boobu PSS boobu Baye. waaw Baye dafa yebal taalibe yëpp yëpp ne nañ ko campagnal woteel ko présente ko pour mu nekk président du Sénégal. moo bi benn waaye gàggee ne ma dégg na Cheikh wax conseiller am ca Xaahira ne ko man mbiru Cheikh Ibrahima Niass suñ papa dafa jaaxaloon ndax dama gis lu ko nit fexeel rek lu ko jàpp bi ma ko jaxasoo moom nag laa xam. sëñ daam ñu ne ko ah mu ne ko xol bi la xolam bi ni mel dara mënu koo jàpp waa ji nag ne ma loolu noo ko firee ne ko ah na ku toll ni am dom ju mën créer parti am taalibe yu mën créer parti am am ñu bëri beneen doomu serigne créer parti pour élire Sénégal élire faale la ci politiquement nga ne na ko ñëpp woteel xol kay loolu la Cheikh di wax non mais je crois que c'est ça bañ démé ba benn jëmmi jamono bàyyi ci boppam ak ay nit seetlu ne Senghor mënulul bàyyi dara waaye taaliba yi ñu ngi leen di sonal ñu bari ñu ngi leen di xañ seen xaq te pourtant bés bi Senghor gisee bàyyi pour la première fois mooy ci coup d'état booba manqué te ñu ko doon def dafa mel dañ dëdd woon mais loolu xas na passé ñu jóge Saint-Louis jubal palais ñu xaar bàyyi ji Senghor wàcc ñu dugaat yotu bi bàyyi na Senghor def na ko sëriñ musuma la musuma la saaga de xam nga waxinu ci ceddo yooyu waaye li wér ba wér mooy fexeel na ko ba tey loolu mooy wér parce que Hadj Abdoulaye Niass dem na ci Muxtarul Daada ak ñam àndal Muxtar recevoir leen boobu dafa fekk mu uuteeg Senghor ci affaire fleuve bi mu ne ko mu ne ko président yàgg nañoo wax pour ñu dimbale ko ci négliger sa papa parce que victoire bu mu am rek daf koy détruire te mu ne ko mosuma laa saaga waaye bàyyi noppi rek bañ ñëw léegi nag benn bés Senghor di ko décorer seen décoration boobu pàq bu mag googu taseeg ki bàyyi di ko wax ne président wu Niger daf ma invité officiellement maa ngi cay waaj mu ne ko boo demee nga wax ko ni gis nañ de maag yow bi nga daal di dem foofu ñu dem bay kii bàyyi di waaj départ mu ne ko sëriñ bul fàtte nga wax ko ne gisee nañ de boo demee muy dugg escalier mu ne <laughs> ko boo gisee joori nga wax ko ne gisee nañ de ma ne ah ah cest à lii mooy la ma waxoon génn naa ci waaw <laughs> ah, loolu waaye sax bàyyi mujjul dem ci ngan googu de façon soppeeku gi jamono rek la bàyyi xam nga sangoon moolu ko dara mais nak bay njabot la am te itam am ñu juum bugg contre seigneur ba pare contre bay xam nga lolu boko ko hein ah waaw compris nii برهام باء وراء ألف ثم هاء